Euh, ci wàllu formation ak insertion loolu nag bu ñu ko waxee dafa am xëy na cosaan euh, cosaan li mooy xëy na ay donga daara waaw yu nekk ci daara ji génn ñu seetlu ñu ci ëpp dañuy am jafe-jafe insertion waaw ci seen taxawaay wax dëgg yàlla ñu amat benn seetlu bu ñu def mooy li structure yi nga xam ne état bi taxawal na ko ñoom daanaka jote jotewuñ ci ñu jàppoon ne seen première barrière maanaam li dox seen diggante daara ji mën naa ne barrière linguistique la waaw ndax état ni mu tege ak ak langue bi xëy na tax na li ci ëpp ñoom lu war a mën a jëriñoo dañuy defe ne lii du seen ay mbir du seen yëfi bopp loolu benn jafe-jafe la ñaareelu jafe-jafe it ñu gisit ne maanaam dañ leen a xaw a seetaan bàyyi leen ak seen bopp ci wet ndax xëy na léegi la mais ci ginnaaw tuuti lu bare bari daan taxaw daanaka daawul leen ci woon tudd ñetteel ba yit ñu jaxase mbir yi kenn xàmmeetu taalibe ak enfant de rue kenn affaire yi jaxasoo lool ah, ba nga xam ne damaa jàppoon ne ñu jàpp ne les grands perdants manam euh donga dari yi lañu taxaw sétlu bobu yeb bi ko defee ñun yalla dogal ñu nekkon ay donga daara situation yi ñu dund ko dañ ko dund waaw mu nekkon lu metti suñu lool ay suñuy jëwriñ jappalé ñu waaw bañu am insertion ñu né le même dispositif dinañ ko jema taxawal inshallah rabbi pour manam lëkkale donga dari yi wala dar ji ak lepp lo xamné dañ leen mëna may yombal seen xey en quelque sorte waaw buñu waxé lool na xeyna mbir mu xawa complexe la ndax daara tamit dafa am nu mu baaxoo daara li ko tax a jóg mooy yar nit ki ci diine loolu dafa jar bàyyi xel waaw moom am na ci loo xam ne kenn sas ko ko du ay mbiram moo tax bu ñu jël ne daara ji déedéet nit moom yar nit ki ci diine loolu moo ko tax a jóg waaye àdduna dafa bindoo noo xam ne ni nga soxlaa diine noonu ngay soxlaa yeneen mbir ci biir ndax lu mu gàtt gàtt nit ku nekk ñaan nga yàlla am sax njaboot ba noppi mën koo taxaw te ñi ci jaar ci cursus boobu yëpp du ñëpp ñoo war a mën a maanaam am li ñu bëgg am na ñoo xam ne yàlla dina dogal ñu ñu am ay waajur yu am ay moyens ñu jàppale leen ñu <laughs> ñu dem fu sori mais am na ci ñu ëpp ñoo xam ne dañuy des ci diggante bi am ñoo xam ne lii seen jafe-jafe loolu lépp mooy bu ñu génnee jàng nañ alxuraan def nañ seen ay majalis seen xam-xam yu ñu war a jàng ba noppi waaye fu ñu jëm ci loolu ñu seetlu ne ñeneen ñi ay jaaykatu kafe xëy na la ñuy jëlaat di ko nekk ñeneen ñi di wër ci marché yi mu nekk lu am solo ndax foofu tamit beneen yoon la beneen jaaruwaay la am ñeneen ñoo xam ne aussi waaw mi ngi noonu ay métiers yoo xam ne dañ ci yaxantu rek mais nekk lu dëgër loo xam ne soo génnee di nga mën a assuré pour nekk ku compétitif ku opérationnel ci marché emploi bi waaw loolu nag xëy na lii lépp ay jàngat la yoo xam ne dañ koo def ba ne ah kon dañu taxawal kuréel gi ci la ñu toog ak sunu ay mbokki taalibe man maa fi nekk tey maa ngi nii dend ak sunu secretaire général national ñu taxawal liggéeyu génération Saliha idée bi ñu ko amoon ak depuis 2013 ñu toog di xalaat waaw mais 2014 2015 diggante boobu lañ formalisé wu dëggantaan nag ak état bi waa am suñu récépissé commencé nag di yaatal suñu liggéey ndànk-ndànk yàlla dogal na ñu ngi yaatu ñu ngi expérimenté affaire bi au niveau du Louga ñu am luñ ci am dem yóbbu benn ñaar ñett ñu formel bi ñu xool bu ñu xoolee ne ah lii lu war a mën a nekk la ñu ne kon nañ ko yaatal fi mu nekk nii ñu ngi dakaar actuellement am nañ fi cellule bu mag a mag ñoom ñii fi lañ nekk ñu ngi Thiès ñu ngi Saint-Louis ñu ngi tuubaa Mbacké daanaka Kaolack ñu ngi yaatal te li ñu bëgg mooy incha allah rabbi 45 département yëpp ñu am fi ay représentants bu ko defee kenn ku ci nekk ay cellule lay nekk wala point focal kenn ku nekk jàpp ne lii sa fi bopp la ngir acteur yi nga xam ne acteur ndax approche territoriale la ñu jël dañ ko méngale comme démarche bi ñu jëm ci territorialisation des politiques publiques waaw ngir loolu tamit gox bu ci nekk ñu xool acteurs ya fa nekk di yëngatu ci wàllu formation ak insertion ak mbirum daara ji waaw ñu ànd ak ñoom ci ci ci ci liggéey bi daanaka lii mooy liggéeyu génération Saalix su ma ko tënkee waaw ndax formation la ak appui à l'insertion waaw loolu lépp la ñu tax a ci biir <laughs> waaw waaw. Mhm. waaw ma macha allah li li résultat bi ci njëkk ndax suñu première mission daf ci bokk ñu dox ñun maanaam di dox diggante donga bi comme ni ma ko tàmbalee léegi.

Euh, te loolu objectif bu ñu fixé woon la te mi ngi gën a yaatu ñaareel objectif mooy mooy suñu diggante ak ñu daara yi mu nekk lu rattax loo xam ne aussi ñoom bu ñu yëkkatee ñun saa suñu yëkkatee ñoom dinañu fekk si te loolu déjà am na daanaka ak fédération nationale bi la ñuy liggéeyal ci seen section départementale yi section régionale yi loolu ñaar objectif la aussi benn bi aussi structure de formation professionnelle yi reconnaître présence u taalibe yi ci seen biir do tam lu ñu expérimenté ñu mu jur ay jafé jafé ndax cadre bi bu soppi ko rek daara ji ak école bo xamné gis nga ko ñu bindo parfois dañuy am jafé jafé loolu ñu ne nañu reyante à ce que moom loolu dañ li ci toppaat tamit moy en terme de formation yàlla dogal na bi ñu bi ñu tàmbalee ak léegi 3FPT euh, xëy na fekk si nañu mais ñu ngi doon liggéey aussi ak d' autres partenaires lu mel ni GIZ ak d' autres partenaires yoo xam ne jot nañu jàppale ak yenn centre de formation professionnelle yoo xam ne volontairement dañoo ñëwoon pour tamit di ñu jëlal ci seen cas sociaux yi dañuy jëlal ay talibé loolu daanaka bi ñu ko tàmbalee ak léegi mën naa jàpp ne ëpp na 500 yoo xam ne xëy na ci dispositif bi daanaka ñoom formé nañu leen wala boog ñenn ñi ñu ngi en cours de formation en terme de résultat ci loolu aussi ñu xalaat ne war nañu taxawal benn fonds d' impact social fonds boo xam ne suñu dongo yi nga xam ne talibé preneur lañ leen tuddee ngir ñu ma leen jàppale loolu tamit benn résultat la te loolu ni ñu ko tàmbalee expérience yi dañ lay jàppale trente mille francs cinquante mille francs di xool xool ba naka ngay demee nga apprendre à entreprendre jàng nu ñuy entreprendre te loolu tamit loolu yaakaar naa dongo daara kenn du ko jàngal loolu waaw ndax loolu nekk la ci ñoom damay wax souvent ne euh, Sénégal daf maanaam ci ñoom rek ngay gis entrepreneur bu sotti boo xam ne kenn jàppale ko koo xam ne da nga ne cëpp ci daara ji rek wàcc mi ngi noonu bi ngay dem ci marché bi yoroo ñaar dërëm hmm. nga dem ah. gis ab commercant wala nangam ne ko ah doo ma jox fii benn euh, mi ngi noonu euh, mouchoir à jeter mu jox la ñett nga ne ko jox ma fee benn diw benn nangam mu dajale ko dem taxaw fee ca wet ga dem jaay ko <laughs> su ko jaayee am ci tuuti bénéfice ñëw delloo la utaat nangam tàmbalee ci ñoom dem ba mu yàgg mu ut ab keesam def ko ci. dem ba mu yàgg mu dépassé kees gi waaw def ko ci ab <laughs> mi ngi doon taabal dem ba mu yàgg mu yor place dem ba mu yàgg ñëpp di ko tudd ci dëkk bi naan place diw. mu dem ba dépassé foofu sax raison nekk mu mën faa am loolu parcours d'entrepreneur la boo xam ne xëy na bu ñu ko jàngatoon dinañ ci gis lu rëy rëy rëy loolu ñoom laay wax souvent ne ñoom ñoo def seen seen parcours te kenn jàppalewu leen comme ñu mel noonu tey suñu fexee ba gën leen jàppale dina nekk loo xam ne lu ama am solo lay lay doon ñu jël loolu yaakaar ne aussi ak suñu fonds d'impact social bi dinañ ko war a mën a dëgëral ci ñi nga xam ne xëy na bu ñu door a tàmbali am dara ñu jéem di leen jox ay somme yu gàtt ngir ngir ñu liggéey ci te loolu yàlla dogal aussi am nañ ci ay résultats yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, xëy na du ñàkk si suñu film yi nga xam ne am nañu ko du ñàkk suñu leen ko partage di ngeen ci gën a gis lu yaatu ñoo xam ne ci nawet bi passé rek jot nañu sax mbay ci loo xam ne lañ leen tàmbalee lu lu sew la

taxawal ak seen ay seen seen ay ay ay ay boutiques yu ñu tuddee chaîne champ ñoom dañu am suñu confiance totale si ñun bu ñu soxlaa ay ñu ñu recruter foofu ci seen kii euh, enseigne yi ñun la ñuy woo pour ñu jox leen ay talibé formé ak d'autres structures de la place yoo xam ne yooyu tamit day faral di am en terme de résultat daal lii mooy li nga xam ne génération Salih mi ngi ci liggéey wax dëgg yàlla ba tey jii li ñu fekk si ni tey ñu war a signé une convention de partenariat de 2000 talibé ñu commencé si 300 quelques ak partenaire bi ñu nekkaloon muy 3FPT déjà loolu en terme de résultat ñu ngi ñu ngi ñu ngi yaatu. effectivement effectivement jig ñun utuñu góor la wala jigéen la sortant daara rek la déjà boo demee Thiès am na ñuy def pâtisserie ñoo xam ne ci ëpp ay jigéen lañu. fii ci dakaar nii am na ñoo xam ne électromécanique la lañuy def te ay jigéen lañu am ñoo xam ne ñu ngi def les métiers du numérique ay fii fibre ak yu demee noonu te ay jigéen lañu loolu ñun daanaka uti ñu di tànn naan góor la wala jigéen sëriñ daara bi daal lu ko yitteel bu fekkee bëgg ab dongo bu jigéen la na indi su dee dongo bu góor la tamit loolu moom ci ci <laughs> lu ñuy xool waaw duñ <laughs> liggantu yi sax ba xam <laughs> góor la wala jigéen essentiel mooy nañu jox ay dong rek ñun ñu former kon ñëpp lañ ko ubbil en quelque sorte ndax tamit jamono ji ñu toll moom waaw góor ñooy jigéen ñi ñooy ñooy liggéey ci lépp te sëriñ yi tamit am na ci ñoo xam wax dëgg yàlla dañoo ubbiku ci sens boobu ba nga xam ne ñu ngi ciy jàppale bu baax a baax a baax waaye daanaka loolu lay répondre si <laughs> ci loolu. très mhm. eh léegi mooy fonds d'impact social bi ñu wax mu nekk ay fonds d'investissement mais à impact social. Donc, loolu tamit bu ñu retour sur investissement bi du xaalis bu nit ñi di gagner. mais en terme d'emploi, emploi yi nga xam génère nañ ko xaar ci retour sur investissement en terme de mise en place li ñu yaakaar war nañ ko tabaxal ay ay centre d' incubation yu tuddee ak financer une partie aussi de la formation ndax partenaires yi mënuñu jël lépp ko ñu am quelque chose de pérenne C'est mooy objectif fond bi ñu lancé ko ci milliard de francs CFA pour a ci ak euh, partenaire de gestion bu ñu tuddee Capital fi ñu toll ni phase structuration bi la toll

waaw ci sens boobu en plus aussi au delà de ça ñu ay ambassadeurs yoo xam ne aussi dinañu jàppale ci collecte d'envergure nationale ak internationale partenaire fi technique et finan partenaire financier yi tamit ONG ku ci mën a jàppale aussi boo ñëwee am nga portail boo mën a duggee pour jàpp ci fond bi waaw loolu daal la ñuy wax ci ci ci loolu mais nag am lu ci jot a expérimenté ndax premier closing bi mi ngi toll ci 150 millions ñu war a njëkk a dajale pour commencer ak ñoom mais lii may wax nii nag génération Sall xaarul kenn daa jël ay propres moyens di ci def

loolu benn la ci ñaareel ba mooy ñi ñu ko sëkkal muy les sëriñ daara euh, début bi amoon nañ ay jafe-jafe waaye bu ñu demee ñun li ñuy wax rek dañuy jéem a jëf wane bu ñu commencé wane xëy na ñu bare bari door a ñëw comprendre ànd ci ak ñoom jafe-jafe la woon ci tàmbali bi ndax xëy na ñëpp ñu tëb rek adhéré ndax li fi jaar aussi di nekk ay lu kenn xamul ay wax rek dafa bari ba tax na ñu ëppoon ci ñoom dañoo xawoon réfractaire par rapport ak programme bi waaw da ngay ñëw wax ñu ne la ah <laughs> am na dañu ñu fi jaaroon mbaa du ngeen defaat ni ñooñu parce que programme yi gis nga ko ñee nga ñëw def seen rapport di jël ay photo di bind di dem waaye chance bi ñu am mooy ñi taxawal liggéey bi ay dongo daara dañoo nekk mi ngoo ko mi ngoo ko da bëri ay dongo daara ñeen ñu léegi et cetera waaw wax dëgg yàlla tey su ma demee diwaan bu mel ni Louga sëriñ Ibrahima Dramé moom mooy euh, yor euh, kii bi euh, coordination sëriñ daara yi au niveau départemental ci biir liggéey bi la bokk suñu comité de sage ak personne ressource suma moo ko yor ku mel ñooñu ne dimbal lañu nañu ba ñu yu bëree bëri fii ci Dakar aussi la même chose gox boo dem ñooñu la ñuy mais laata loolu di am jafe-jafe bi moom mooy naka lañ leen di mobiliser ci liggéey bi ngir ñu dem ndax daara dafa am lu mu bindoo nekkul ne tout temps nga mën a jël doog a daara bi génne ko mu dem jàngi ñaar bi aussi dongo bi pare it yenn saa yi nekkul foofu lay sax ci gox ba mu pare ba mu dafay war a jóge foofu dem ñibbi di par exemple koo xam ne Touba la jàng war a ñibbi Ndakaaru yooyu yëpp dafa nekk ay <laughs> waajtaay yoo xam ne sëriñ daara yi duñu mën a tëb tëb jël yenn risques yi di ko def fi mu tanee sax mooy sëriñ su mag si nga xam ne ñoom boo leen di jox xale da leen koy jébbal daanaka ñoom mën nañu wax ci avenir xale bi mais sëriñ yi nga xam ne xëy na sëriñ daara ñoom rek lañu parfois du ñuy mën a jël décision yu mel noonu directement ba tax na faaw ñuy laaj est-ce que est-ce ay jafe-jafe la woon ci tàmbali xam ne am na bis toppaat aussi dañu am yéene waaye amuñu woon partenaire yoo xam ne dëggantaan dinañu mën a jàppale comme IMS li Sow Touba loolu début bi wax dëgg yàlla métti woon na trop waaye nag ñu ngi sant yàlla ñu ngi ñëw par benn benn wax dëgg yàlla ñu ngi yaatal et cetera et cetera waaw fi mu nekk nii nag jafe-jafe bi njëkk bi njëkk du formation mais coordination qui tourne autour loolu mom mom moy mom metti liñuy ñuy ci transport liñuy ñuy ci téléphone liñuy ñuy ci support de communication liñuy ñuy ci mobiliser xalé yi xalé bo xamné mi ngi noonu yow ya yu wara a leppam buma lay wax ni barki démb lañ ñu wo suñu xalé yu nekk ci euh, euh Kaolack ci Sokone ci incubation bi fa wara def ñu tok ba mu yagg lek gi ak nan gi fofu na dañ leen jëlee ci barab yóbbu leen ci barab ñu war leen fa former

ndax bu doon noonu la yombee kon duñu jaruñu lëkkal lëkkaloo kenn kon partenaire dañuy dem directement jëli leen mais jafe moo tax ñun ñu nekk ci diggante bi kon jafe-jafe bi ñu am ni actuellement di ñaan ku ci bëgg a jàpp xëy na loolu moom ñu ngi la ci lu mu gën a gaawee def ko mooy dans ce sens travail de coordination bi qui gravite autour de la formation te au delà de la formation ñun def yemuñ ci formation dañuy bëgg insérer xale yi te kii wax insertion am na complexité bu mu am ndax dañuy wax parcours te parcours bi étape boo ci fauché étape boo ci fauché sa sa sa insertion dafay jafe du former rek pour former damay wax ne Sénégal mën nga xëy ne dinaa former un million de personnes mën ngaa xëy wax ko mais sañoo xëy ne dinaa insérer cent personnes pour une insertion durable sañoo ko wax. mën ngaa nag taf taf ni ba teg benn waaye ñaari fan ñetti mu kon am si am na coaching derrière boo xam ne ci war a am ba keroog ku nekk di mën a dem ak ay propre élément

guddeeg bëccëg ñoom dañoo joxe yàlla tax xëy na loolu tax na yenn yi ñu koy réussir mais jafe-jafe bi moom mi ngi noonu daanaka <laughs> waaw li ma ci leeral nii daanaka doy na sëkk pour képp koo xam yaa ngi ci jëm donte wax dëgg yàlla am nañu ay membres yu déterminé par rapport ak euh, résultats yi ñu am lu mu néew new new néew noonu la léegi li ñu njëkk a def muy mise en relation la ñuy def waa mooy état dafa taxawal ay structure de formation professionnelle ba par yoo xam ne ñu ngi fi te kenn moomu ko ñëpp ko bokk amul am na ñu fay former aussi ak approche par compétence ci biir centre de formation professionnelle ñu sóoraale fa ñu fa tuddee li ñu tuddee les niveaux attestés moi ñi nga xam ne jànguñu wala arab la ñu jàng ñoom ñu pro maanaam pro nañ leen ci dispositif bi mais limay wax rek malheureusement malheureusement ñom ñi nekk fi xamuñu feulé kon ñun li ñuy def moy centre yi existé d'abord nan lañu fexé ba dooga daara yi jote ci

chaque localité aussi nous ngi un bureau pour chaque localité loolu la en commençant par Louga Dakar Thiès et euh, et Touba pour l'instant waaw bu ko defee bureau yooyu tamit xëy na liñ ci bëgg mooy équiper ko bu ko defee ñu am dispositif boo xam ne genre gis lay nekk au niveau de chaque localité pour loolu mën a mën a nekk mais bu dul loolu moom li ci des lépp ñun ñooy <laughs> métti dong la def waaw ñu nekk ne nekk ci dem ak dikk wax di képp koo xam ne it lancé war nga ci mën a contribuer ndax liggéeyu ñëpp la ñun ñii ñëpp <laughs> suñu alal la ñuy jël di ci def kenn ku ne da ngay jël sa salaire daanaka xaaj boobu yëpp boo moytu di nga ko def ci biir liggéey bi foo gis ko baax tamit nga ñëw ne ko kaay mu ñëw jàpp ci daanaka noonu la ñuy liggéey mais suñu suñu suñu bëgg mébét mooy ñoom secrétariat wax dëgg yàlla national sax boo xam ne waaw dinañ ko mën a gérer ak staff yi fa war a nekk yëpp avec les techniciens xam ne su boobaa problématique bi dinañ mën a gën a stable ñu gën ko mën a gérer comme ni mu waree waaye approche bi daal la liggéeyee waaw ci ci sens boobu waaw. waaw xam nga lu ci am solo mooy euh, avant ma yegg si cadre santé yi sax loolu laay njëkk a wax waaw ndax lii ñuy def nii.

ci suñu expérience bopp loolu li ñuy ñaan sénégalais yi li ñuy ñaan état mooy mu capitaliser ko génération Sall du affaire de Fallou affaire de Mbarak Mbacké affaire u sénégalais yi la affaire mbirum daara ji la ñoom ñu def ko seen moomeelu bopp lii ñu ma nekk ci ñu gën ci mën a ñëw jàpp ci ndax déjà jaar nañ foofu léegi nag ñëpp a ngi ñëw ku nekk nga xëcc ci sa côté mii li muy ñaan mooy ñu harmoniser boole sunu doole ngir lan dongal bi mën koo gën a jëriñoo ñu ngi doon def mais dafa def en en terme d'efficacité ak efficience affaire yi résultats yi xëy na xaw na manqué foofu li ko manqué mooy ñu booloo ànd. defale defale la ñu boole. kon loolu la ñuy lancé waat ci ci ñëpp ñu xam ne loolu arme cadre d' harmonisation cadre de coordination mën na ñàkk génération Sall di def tamit ñoom ñu mën koo capitaliser di nekk lu am solo. benn bi aussi di profiter di sant di gërëm ñi nga xam ne ñoom la ñu àndandoo ci liggéey bi ñun en tant que coordonnateur dañuy coordonné rek. mais liggéey bi dëggantaan sunu membre yi ñoo koy def sunu coordonnateur de jeunes yi ñooy dem sur le terrain mu métti lool yenn nga dem la nga fa bëgg doo ko am yenn nga dem si nit mu xaw laa sax ñàkkal fay la tuuti mais ñu déterminé wu yenn saa yi guddeeg bëccëg ñu ngi liggéey ku ñu xam ku baax tamit nga indi yenn saa yi xam nga ñëw formé rek dafa yomb mais foo xoolee fa ñu jaar mu indi la dongo daara bi nga formé ko loolu war ngaa xam ne liggéey bu rëy rëy mi ngi ci derrière kon ñooñu man personnellement damay wax ne mënu Sénégal bu leen war naa xalaat ñu mel noonu nga xam ne dañuy def engagement boo xam ne mu personnel boo xam ne xaaruñu dërëm xaaruñu dara ci biir ngir di ko def ñooñu di profité di leen sant bu baax a baax ci turu Maram Mbacke mi nga xam ne moom laa fi nekkal di secrétaire général national génération Salé waaw kon daal xam naa ne yow tamit yow mi ñu dalal <laughs> sama di la sant bu baax a baax ci dalal gi xam naa